asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu si ñi fi teew ku ci nekk sa tur ak sa sant di la jox sa wàccuwaay. maa ngi tudd Soda Fall dëkk ginnaaw raay ñun la waa groupe keppaaru nabi ñun nag ñoo ngi masawu ñu gaañu woon si manifestation yi ak ñi si ñàkk seen bakkan ak ñi si ñàkk seen liggéey. dañoo nekk nag di waajal benn woy ci Muhammad ci biir koor gi. am na bu ñu génnee léegi ci koor gi ndax weeru koor gi mooy chahru ramadan yàlla nañ si yàlla fay ay yiw yàlla nañ si duggee yàlla nañ si génnee noonu génnee nañ nag benn woy ci koor gi ñoo ngi waajal di génnee beneen ci muhammad ñu ko woowee nabi yu rahma si début koor gi dañ ko bëgg a génnee ramadan E wala. yow mi joxe ndogu wala, yow mi nafile E wala. yow mi jàng qur'an xéewalam yonent bi nentu biwa khonako. ambition ñu lay teeru di la dalal di la gunge weeru koor weeru koor weeru quraan ñu lay teeru di la dalal di la gunge weeru koor weeru koor weeru quraan waaw expression bi ñun dañoo nekk famille ñun waa groupe Keppaaru Nabi dañuy toog ku mag ba ci ku gën a ndaw ku nekk dangay joxe sa xalaat rek ñu boole xalaat yi daal ñëppay xalaat bu nekk rek ñu xool sa xalaat bu dee méngoo na wala bu fekkee kii nag ñu boole noonu rek lañ koy defee waaw. ñoo ngi nekk école Keppaaru Nabi waaw. mi ngi nekk ginnaaw raay noor. quartier Malick Fall foofu la nekk. waaw fa la jàngee. waaw franco arabe la. mais am na internat. woy tamit si école bi rek. waaw. ñëpp si école bi lañ nekk. Hmm. clip waaw xam nga dañoo nekk ci weeru koor te weeru koor ku nekk ak ni nga mën a joxee rek ñun bu mënee joxe ci woy tamit si woy lañ koy defee pour ñëpp yëg ko daal bëgg nañ nag fi nit ñi yegg tamit ñu yeggale fa suñu woy yi ba ñëpp di ko dégg ci Sénégal ak bitim réew àdduna bi yëpp ñëpp di ko yëg daal ñëpp tamit bëgg nañ tamit suñu génnee ñëpp kontaan si daal waaw ñu ngi leen di wax daal ñu gën a partager vidéo yi rek di ko estati di ko vidéo di ko def yëpp te ñu xaar ñi tamit ñoo ngi ñëw ndax dañuy waaj a génnee album waaw fii ak ay fan am na bu ñuy waaj a génne tamit si koor gi boobu ñoo ngi ci way yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw daara yi moom ñoo ngi nii école franco arabe moom ku ñëw rek di nga jàng incha allah. pour ñu ñëw fekk si ñu ci keppaaru na bi bëgg nañ élèves yi bëri bëgg nañ ku bëgg rek mën nga ñëw incha allah. dinañ la jàngal sa diine. waaw dinañ la jàngal sa diine. jàngal la xam-xam la français jàngal la arabe jàngal la alxuraan lépp la ñuy jàngale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا الشمس كورت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العظيم ويرو promoción a يوم Y un laitero, بلد Ilagunge weru kor weru kor weru Quran Yung lay teru Ila dalal Ilagunge weru por.